la laaj ma tijji ko mm. live bi ndax ñaa bu ndaw waroon naa jël ama neex combat ah. Anas tey ak ki nga xam ne nii tey jii mooy Quench lan ngeen ci xam mais ñaa bu ndax waroon naa jóge ci Zarko ñëw jël ki nga xam ne mooy ama neex ndax ama neex gënta danger Zarko loolu dama leen ciy moo intéressé la léegi fi may daane damay ne ñaa bu ndaw ndax war naa jël ama neex bi ma ko waxee dama ne ko bul laal bul jege benn ngi noonu waaye bi ma xoolaat situation bi ba xoolaat situation bi xool ama neex taayu ama neex xool taayu ñaar bu ndaw ma xam ne ne bëri suuf du gaaw a am benn nga noonu ñaareel bi ama neex mbër muy takk la mbër muy mbër muy ñaan la mbër muy mbëkkee Bakary nga ne ñaar bu ndaw bi mu la njëkkee wax combat ak ama neex loo ko wax dama ne ko bul laal bul jege lan lan lan nga lan moo taxul nga ko automatiquement rek nga ne ko bu laal bu jege. eh ama neex moo booy yëpp ah, ay ñaa bu ndaw ay ñoom Sarko ak ay ñoom bébé ji yëpp ama neex moo leen man gars yi xam nga lan la c'est que ama neex dafa toog lu yàgg bëriwul rek kese mais ama neex ci ci notion wu sportif gars yi kenn mënu ko ci dama la koy wax léegi du sama mbër mais bu dee logique la ñuy wax dëgg làmb rek ama neex moo mën ay ñoom Sarko yi nga gis ñeeg gars yi di tërërër yi yëpp moo leen man léegi na dañuy dem xooli lu concorde ndax ñaa day wàcc li keneen ma ne ko non waroo wàcc jëli keneen fi nga yéeg baax na demal nga chercher sa cachet dimbale sa ndey dimbale sa baay combat bi li lay rëccoon ci combat bee nga defaraat ko préparé wu ko ama neex sa adversaire la respecté ko ngeen bëri euh, merci ñaar bu ndaw mën a préparé ak ki nga xam ne mooy ama neex ama neex ba nekk ci mbër yi nga xam ne nii ñoo gën a naqaree bëri ci ñaar bu ndaw ci lan la war a mën a basé pour mën a tenir ama neex pour ama neex bañ a bëri alaaj fadam ci lan xanaa xamoo ñaabu ndaw dafa juum côté Zarko ci lu mm. bëri. gone da mm, mm, gone da nga am fooy toll bu ñu la asamaan day wàcc sax da nga naan da nga koy téye. bu la ay kàngam conseiller doo ko gaaw a dégg wala nga koo dégg da ngaa dégg wuy samanday loolu moo ko dal ci Zarko benn ñaareel bi dem na ruuxaat loxom ci taatu gaynde déglu ma bu baax mais ruux bi moom moo xippi bëtam ba gis ko soog koo ruux waxuñu ko yéegal yéegal da ngaa war a yéeg bii moom moo ne daanu naa jóge ci defet xaaral ma dem jëli lu gën a tàng lu gën a metti wan Sénégalais yi ne kii dama koy daan pour wane sama champion parce que ni ñi dañ naan ma ama euh, ñaabu ndaw lii lii lii lii loolu nag ma xam ne ne notion sportif bu jóge ci defet bëgg ngaa prouver ma ne ko kon nañ ko jël songandoog moom ànd ak moom liggéey ak moom ak fu ñu mën a yegg ñu yegg fa tout simplement c'est ça la réalité des choses ñëw ci fi may tëjee rek sama war a dem jàngale ji fi may tëjee mooy diggante. mais eh. il faut Matar li nga wax il faut Matar Gueye tontu. non non billaay damay jàngale ji. ñëw ñëw maa ngi jégul maa ngi nii. waaye kon maa nekk. Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 bëgguma baatu ginnaaw nag Matar Gueye sinon naa la tontu. Alioune Seye 2 da ngaa bari wax. Alioune Seye per Max Mbergane dafa saraxe coins. per Max dafa saraxe coins. Quench làmb dafa mel ne dañ koy dëgg te di ko piétiner Quench waroon nañ koo jox ci VIP yi. Quench amatul lu ñu forcé leen ñu jël ndax benn un million deux millions moo tax duñ ko jël. dañu waxante dëgg kon promoteurs yi nañ xaw a yolomal tuuti seeni loxo dem ci logique lamb léegi Alioune Seye 2 li mu def ci làmb kenn mënu koo bañ mais dama ne la Alioune Seye moo gën a xotteeku foofu fukki Quench yoo teg. ndax nag Coen su trois derniers combats yi jàll mook double moteur Coen su dafa amoon problème mu daan ko contre Diène Kaïré mu am problème mu daan ko contre ki nga xam ne nii nag moom mooy Lac Rose sax mu amoon problème mu daan Lac Rose ça veut dire que Coen dara ci wàllum pànk ci wàllum xeex lu xotteeku ci wàllum bëre day xalaat di xalaat di xalaat dégg naa ko mu ne moom mooy bëri loon noonu gars yi saa bu leen neexee jàpp leen daan mais kon combat yooyu yëpp ay match nul la kii ay ay ay décision d'arbitre la kon dama lay wax ne la buñ xoolee la kii nga xam ne mooy Alioune Seye 2 caaxaanut fowut booy bi caatu yoof version wu géejawaay la booy bi loxo bi diis na booy bi am na lecture de combat te moo mën ko loolu lay wax léegi nag kuy daan. non non mënu ko mënu ko moom loolu bu ko wax. defal ndànk mais ñëwal ma tar gi siif ko rek mënu ko defal ndànk déglu ma wax la dama ne la dama demaatal demaatal ñoom ñaar ñëpp ci seen trois derniers combats. Babacar xaaral rek xaaral ma expliquer la. xaaral waaw damay jàngale ji wala ma bàyyi la non non kay dama yor kuur nag sama karas baa ngi nii sama gars comprendre naa leen. dama la bàyyi moom bu ma daanee moom bu ma daanee ma jaaxal mooy Matar gi léegi dalaa laa ñeme. dana ma ñeme parce que baay ba ma fekk ko Italie rek. <laughs> mais Matar gi boo ñëwee dama lay ginaar léegi yow Matar gi lan mooy sa position ci gis nga boo bëggee dégg-dégg. waaw. Aliou Seydou am na combat. Mm-hmm. am na adversaire bu mu dul yàkkale fenn gis nga lii Bakary bonsoir classe lii Bakary di wax lii ay ay rek ay ay jéem kay rek loolu loolu c'est des détails yi mm-hmm. mais yow boo xoolee parcours Coins fi mu jaar tey d'accord làmb dafa am na muy doxee Coins dafa bokk ci mu dem ba yéeg ci kaw gars yi war koo may loxo mayuñu ko loxo Coins dafa yor famille dafa yor kër dafa am ko war mu toog bëreewul mm-hmm. ban intérêt la ko amal mais amul ko benn intérêt. mais Aliou Cissé dafa def ay preuve am. Aliou Cissé def ay preuve am sa normal coin sa bëreeg moom. mais mm-hmm. nag li Bakar di wax fii teguwul ko fenn fenn la teguwul. Mm-hmm. ay Max Barga a ko saraxeek ay ay ay Aliou Cissé moo man coin loolu teguwul tegu ko fenn kan mooy toog ci làmb ñu séq làmb ak ni làmb di demee ak mbër yi dong la gin fi dong la nga taxaw ne Aliou Cissé moo man coin loolu fan la ko Bakar. kon da jàpp ne Aliou Cissé de compte ko man. góor li ma la wax du ma ni moo ko man mais dama ni la Alioune Seye am na adversaire bu mat adversaire ci làmb Fadam tàkku saani Quench fi la la fekk la ndaanaan la ay dóor peut ay Quench ay dóor yàqul kombaam de déedéet ay dóor yàqul kombaam mais lan war a uti ci diggante ak Alioune Seye numéro war wuti ci Alioune Seye numéro deux lu mu lu mu deful ci combat la war a def parce que combat bi Alioune xam nga ne ba mu ñamay xeex ba léegi ni bëreetul day xeex rek ta xam nga ne bu dee bëree kese la bal Alioune Seye mënu indi bëree bu jaaxal Coens kon Alioune Seye mhm. ban atu la war la war am ci Coens mooy mu mu jëm ko escanté mhm. waa léegi Coens dana préparé ji loolu jeex na diggante ñaar bu ndaw ak ki nga xam ne mooy amaneex su ma waxatee tey su ma ni ba ba Bakary xuloo teg man xamul tax Bakary di xuloo man sa yëpp waaw dañoo jël Zarko man leen du ngeen doy mhm. Zarko da leen di daan bi ngi ne ku fi di teg ay argument ñaamu ndaw déggul conseil ñàkk déggu conseil ñaamu ndaw bu ko làmb bu xoolal bu ñëpp bàyyi Zarko tey di ko conseil bu demee Zarko tënk parce que amul tax mm-hmm. niveau ba àggu fa mentalité ba àggu fa bëre ba àggu fa sañ ba àggu fa. dañ mm-hmm. waxante dëgg Fadam. mais digganteem ak ama neex. combat bu yéeme la. waaw combat bu yéeme la parce que mm-hmm. dafa jël mbër moo xam ne si kenn mënu ko natt ci làmb. ñor dëgg lool. Mm-hmm. ñor lool. mais mais bu fekkee ne Niang bu Ndaw am na ñu mën a liir làmb am na loo ne tey jii war na fa mën a taxawee yàq làmb làq làmb. déggoo li ma la wax xam nga xam nga Niang bu Ndaw bi lan moo ko mën a génne ci combat bi. mooy li wax mooy ñu am xam-xam ñu mën a liir làmb. mën a tegal ko extra waaw tegal ko extra bu leer. mën na cee génn mën na cee génn. Tamu mu nek lo xam si nak bu arbi soufflé da ci focus bu ama neex day déplacer wu da ci focus. non neel première 5 minutes yi ci loolu lay focus. dégg nga li wax. parce que da koy préparer ñu indi ko ci liggéey ndax ama neex ndax ama neex première 2 minutes combat wam ñi mu daan ñëpp ci leen daan ñi ki réussir yëpp ci leen ci réussir. déggoo li bala wax. ñaamu ndaw jël na si calcul faram. la jël. la jël de dama na sax ay li ñaamu ndaw jëlati jël le combat bu yëwee li ñaamu ndaw jëlati man nak samay wax da dul neex. padam hmm? bañu ma ñaamu ndaw. dédé kan moo mëna mën a bañ. kooku avenir lamb kenn avenir lamb la mais wa waa bi nga xamni ño yor ñaamu ndaw. saison bi ni ñu nalewe gisuma estaf bu musa nalewe nonu ci àdduna. Mhm. ñaamu ndaw daa waroon itam Zarko ñaamu ndaw waru ñu tab am ama lamb dem na bu ko fofu hmm mais fu ñu nelawoo bay dugg ci ay Zarko nga génn ci Zarko ngay génn ci Zarko dem duggati ci amaneex mm-hmm. kon après booy fan la jëm moom. man tey jii man su fekkoon ne bokkoon naa ci estafu ñaaku ndaw dañuy tëb amaneex dem jëli ji Lac Rose. très bien. man dama bokk ci estafu ndaw damay tëb amaneex dem jëli ji Lac Rose xamul sax loolu. Mm-hmm. foofu mooy xaw a sax tane. fii ñuy dugg mais fii ñu dugg combat boo xam stratégie la. combat la boo xam ne nii c'est combat buntu la. lu mu war a préparer la ndax Lac Rose daa dugg géejawaay nii la Fils de Balla ñoom coow loolu la ñu waroon topp mais waruñu woon a miséwu ci ki nga xam ne mooy Amanekh mi nga xam ne mbër la moo xam ne bu këpp tamit la Amanekh amul mbër bu la wax ne mu wax na lii la Amanekh ma ne amul kenn ku ko mën a wax. dégg li ma la wax naa la ko léegi nee naa la Amanekh ku te li ma ci jaaxalate ba. jaaxaate mooy est ce que ñaamu ndaw mën naa fermer ci kanamu ama neex ni ko tey dama dama lay dàq dama lay koñe dama lay duma. <laughs> loolu loolu dencal ma ko loolu dencal ma ko looy tàggatoo Alaaji Matar gi kontaan naa ci yow. param nag maa gën a kontaan dégg uh-huh. maa la gën a kontaan sa life neex na. Mm-hmm. mais daal boo bëggee dégg-dégg dem boo bëggee dégg mooy. saison uh-huh. ren bi spécial neex na mais mm-hmm. Fadam da ngaa rek somb somb combat rëg-rëg booy ñaar mais somba bu combat boobu lay neex mën naa taxaw déwén ñu mën naa dem war a jëm déwén déwén mais déwén lay neex mais nag mais nag Fadam waaw ñoom booy ñaawoo ñoom Modou Lo ñoom Ama ñoom Balla ñoom Tapha am nañu client bu dul yàkkale de muy kan rek rek baax na jërëjëf nañ ko côté foofu